juróom-ñaareel bi muy kafu shahawaat fekk bànneex yi nga xam ne mooy bànneexi làmmiñ jëw ak wax ci nit ñi ak lu la neex wax sànni saw làmmiñ lu la neex déglu lu la neex gis lu la neex def maanaam topp sa bànneex jamono la nekk joo xam ne doomu aadama yi dañ leen a nattu tey jullit ak ku jullit dañ leen a nattu nattu boo xam ne ku wëttuwut sa diine yàqu ku yorul pas-pas boo xam ne moo lay aar sa diine mën naa yàqu jumtuwaay bii ñu yor képp li ci nekk ci luy yóbbu diine nit kenn xamul lu mu dëgg la ki ko bëgg a jëriñoo ci loo xam ne luy indi diine la ak di ko yombal la ca nekkit kenn xamul nu mu waaye ab nattoo ngi ci de natt bu méttee méttee métti mi ngi ci ci jamonoy saxaaba yi borom bi tabaraka wa taala dafa wax laaye joo xam ne daa nuroo lool ak lii nu dal ci téléphone yi tey borom bi def ne yaa ayuha alladina amanu la nabluwannakum bi cheyin min assaydi tanaaluhu aydikum wa rimaaxukum li yaclama allahu man yaxaafuhu bilxayb faman ictada bacda dalika fa lahu cadaabun alim borom bi saxaaba yi lay waxal foofu dañoo génn di aji xam nga koy aji dañ koy tere mu rëbb boo rëbbee sag aji yàqu na da ko war a defaraat biñ génnee di rëbb di di aji ba armal ba noppi fiñ toog kéwél yi nga xam ne ñoom lu ne lañ daan daj pour bëgg leen a gis ba rëbb leen kéwél yi ñëw toog ci seen wet boof borom bi ne lanabluwannakum bi shay'in min as-sayd danaa leen nattu ci am rëbb tanaaluhu aydikum <clears throat> boo tàllalee sa loxo mu laal ko ko mu sab xeej boo jëlee da ngay jàmm waaw kiñ tere nga rëbb te yow sa dund gépp li nga doon wax ak di ko gëstu mooy gisoon mala mel nii ba mën koo jàpp nga armal ba noppi mu ñëw boofu nag fi sa wet nattu la de tanaaluhu aydikum wa rimaahukum loolu tax li yaalama allahu man yaxaafuhu bil gayb loolu ngir yàlla feeñal yéen ndax da ngeen ragal yàlla seen digganteek yàlla wala da ngeen ragal yàlla seen digganteeg nit ñi kon lii mooy dal jullit bi tey toog foo xam ne kenn nekku fa ku dul yow ak yàlla téléphone bi ay yëf nekk ci yoo xam ne njaaxu kese la yoo xam ne bu la neexee nga déglu ko bu la neexee nga xool ko te kenn doxul sa diggante ak loolu li ya'lam allahu man yaxaafuhu bil gayb ngir yàlla xam yow mii ndax dangaa ragal yàlla sa diggante ak moom wala sa diggante ak nit ñi ndax lii ngay seetaan bi nga toogee ci ruq bi yow dong boo nekkoon ci biir mbooloo bi ñu bokk toog da ko génne ñu toog nga di ko seetaan foofu lay feeñe ndax sa ragal yàlla gii sa digganteeg yàlla la wala sa digganteeg nit ñi ndax nit ñi nga ragal wala yàlla nga ragal loolu yi ab ba ca tegu bu juróom-ñetteel ba mooy raddu shubuhaat